Yeah. Huh?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 نيو كو زيار كو باخ كليفا كير دي الحاجي الدو غي محمد الدو غي نيو نانكو بيغي كو زيار كو نون لا نيو مبولم بيرسونيل بو نيك تي ا تي في لا بريمير شين اوربين دمبور ما شاء الله زيار لين بيغي لين نيانال لين يالا بولن كين اوبلي تي سيدنا محمد عليه الصلاه سلام نيانال سيرن منتقى مباكي خليف جنرال كل مريد مو في لول تي وير لول تي باركي يوننتي بي تي باركي مامام شيخ احمد بامبا خادم رسول noné lañuy ñaanalé mbolém mbooleem mam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul gépp bàyyiwuñu kenn nuyu nañu ñëpp ziar ñëpp ñaanal leen sha allah ñu yag fi lol te wér lol ci barke sen mam Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul ci barke sen ci barke sayyiduna Muhammad ali salatu wassalam tabarakallahu comme niñ leen ko waxee woon tey bisu màggal gi di 18 safar yembok le 4 septembre 2023 ñu ngi fii ci Touba Mbacké ngir defal leen plateau spécial waaye defal leen le point sur le Magal 2023 sur côté li nga xamante ni mooy organisation côté ni nga xamante ni mooy ni nit ñi ñëwee ci màggal gi fa tabarakallahu waaye tam yenn ci ay kilifa yoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bu tedd bi di Touba Mbacké demoon nañ seeti leen tabarakallahu euh, saafuwante ak ñoom euh, tabarakallahu wecconte ak ñoom ay kaddu ñu wax nan la ñu gisee màggal gi waaye itam fa tabarakallahu nan ban yëg lañ am ci bis bi nga xamante ni moom la seen maam woote muy euh, bis bi nga xamante ni daf ko woote ngir ñëw santale si ko euh, santale si ko yàlla ci euh, ndam lu rëy li nga xamante ni yàlla may na ko ko tabarakallahu ci tukkeem bu rëy bi nga xamante ni tukki woon na ko tabarakallahu moo tax équipe bu ATV macha allah depuis ñetti fan ñu ngi fii ci dëkk bu tedd bi Touba Mbacké ngir Euh, fas yéene ànd ak yéen ngeen dund li nga xamante ni mooy màggal gi 2023 macha allah comme niñ ko waxee rek euh, niñ ko daan waxee ñu ngi fi nga xamante ni mooy que Serigne Dame Atta Mbacké moom Serigne euh, Ibrahima Mbacké moom maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul tabarakallahu di nuyu njabootam gépp Serigne Moustapha macha allah Serigne Abo Mbacké waaye itam di nuyu Serigne Laat mi nga xamante ni. moom lañ nekk ci këram ci dalam eh, fa tabaarakallaahu moom la ñuy wax dal bi ci kaw tabaarakallaahu eh, mu ngi noonu sans plus tarder eh, macha allah dañuy dem ci dal bi nga xamante ni mooy dalu Serigne macha allah Serigne Laat mbake moom Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Ibrahima mbake fa tabaarakallaahu ginnaaw bi ñuy xëyee nag fa tabaarakallaahu dem nañ ci dal ba macha allah dem seeti waañ ba. Euh, ni nga xamante ni noonee la ñuy doxalee ci biir waañ bi waaye dem nañu fekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo wàllu organisation bi ci biir waañ bi dénkanteeg ñoom ay kàddu euh, tabaarkalaaw ñu wax ñu nan la ñu euh, fas yéenee berndeel gan yi waaye tamit nan lañ fas yéenee dalalee gan ki nga xamante ne mooy ci dal bi fa tabaarkalaaw kon nag régie bu élément bi yembe ñu dem seetaan ko te ñëw daal di koy commentaire incha allahu Euh, ñun ak yéen euh, ba guddi màggal gi tey en direct lay doon fii ci ATV la première chaîne urbaine de kon à vous l'antenne régie Abdoulaye maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi nii ci yor yoru màggal gi ñoo yor wàllu ndekki yeeg bernde yi waa mag soxna Adja Diop ñoo ne ci waañ yi nii def suñu hôtesse su yaañ yi lépp rek pour màggal euh, suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul mhm. waaw. waañ bi nan la deme waañ bi macha allah ñi ngi def parce que sëñ bi dafa ne moom màggal gi rek ko ñor sama màggalu maam gi rek a ma ñor de ce fait que lépp li fi ne ñi ngi koy bernde jox ko gan mooy plaisir am waaw waañ bi. soxna si ñu ngi lay maa ngi delloo ziar ñëpp. Adja Diop. Adja euh, ñun ñoo nekk di servi di jox gan yi di leen berdeel comme ñun moom topp ñu kenn sëñ Abdoulaat Laxaat Mbàkke la ñuy topp te loolu dong la bëgg donc loolu lañ koy defal jox gan yi ñu lekk ñu naan. loolu daal mooy suñu suñu tànk. waaw loolu daal lañ bëgg. est-ce que nga nekk waañ bi nga xam ne façon nit bu nekk mooy ñëw. Uh-huh. Euh, nit ki léeg mu ñëw xam nga euh, doo leen ko xam ak yu demee noonu mu ñëw rek. Uh-huh. ñëw gis yëf yi yaakaar xam nga uh-huh. mu ñëw ak loolu itam euh, nan ngeen koy dundee ak gan yi ndax. non waañ wala métti amuñu ci benn problème parce que ñun ay murid lañ te murid moom defe naa ne xolam dafa war a toj. te ñun suñu suñu suñu plaisir mooy jox gan yi ñu lekk ñu naan ku ñëw sa tàngaay tamit boo ñëwee dinañ la épaiser nga toog naan lekk xam nga ndax sëñ bi daal loolu la ñu digal ñun te sëñ bi rek la ñuy topp wax dëgg yàlla li mu bëgg daal lañ koy defal. ñu ngi lay jaajëfal waaw kay maa ngi leen di jaajëfal bu wér. maa allah cameraman may topp euh, ba tey tabaarakallaahu am na suñu beneen jigéen. moom mun na taxaw nii sax euh, tabaarakallaahu ñu daal di koy. Euh, jël soxna si ñu ngi lay ziar. yàlla na suñu borom ndaay loo maa ngi leen di delloo ziar yéen ñëpp. tur bi nan la. soxna Mariétu Guèye. soxna Mariétu Guèye. Mhm. nan nga gisee bëccëgu mag yor-yor màggal ji ak euh, berne yi tam ak yooyu. ah bi moom nii la rek berne toppatoo gan yi ah fexe ba ñëpp kontaan rek comme ni ko sëñ bi bëggee. Mhm. Mhm. toppatoo gan yi defee ko comme ni ko euh, seen bi bëggee euh, tabaarkalla gis nañ ni nag euh, ndékki yi macha allah yéen nekk ci waañ bi lan ngeen di promettre ñi nga xamante ni ñooy taalibe pour añ bi ak reer bi. ah day nekk añu màggal rek xam nga añu màggal moom lépp a ngi ci biir daal. Hmm. waaw yéen ñëpp ñëw leen añ si amul dal ñëwal fii incha allah ñu defar ba mu baax daal màggal bu soobee yàlla. jërëjëf mhm. ñu ngi lay jaajëf Euh, euh, kontaan nañ bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy élément bu am solo boobu ngeen ñu dégtal dégg ngeen euh, suñu jigéen yu tedd yooyu yu baax yu yooyu macha allah ak kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko macha allah nga xamante ni fa tabarakallahu yéen a ko déggandoo wala boog ñoo ko déggandoo di leen jaajëfal bu baax a baax noonu la rek ndax li ñuy li nga xamante ni mooy bernde dafa bokk ci li nga xamante ni mooy màggal gi tabarakallahu ndax macha allah mu ngi noonu bernde moom ku ni yoonu murit wax ko waaye ku ni màggal itam wax teraanga ku ni màggal wax bernde ku ni màggal wax jàng xasaid waaye jàng alquranul karim fa tabarakallahu mu ngi noonu yal na yàlla barkeel leen ci darajey sayiduna muhammad yal na yàlla barkeel leen ci barke maam Cheikh Amadou Bamba xaadimu rasul kon nag mu ngoog Euh, nee nañ leen euh, ATV la première chaîne urbaine de Mbour jóge ba diwaanu Mbour géej ñëw Touba Mbacké ñetti fan boobaak léegi ngir euh, dégtal leen li nga xamante ni mooy lépp lu jëm ci wàllu xibaar jëm ci màggalu Touba bu maam Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul gi nga xamante ni daf ko woote ngir ñu ñëw santale si ko yàlla ci ndam li ko yàlla may ndam lu rëy li ko yàlla may ci tukkeem bu bu bu bu nga xamante ni ndeysaan euh, defoon na ko euh, tabaarakalaaw euh, ba tey ci dal bi sax la ñuy des kër Serigne Dame Atta Mbacke moom Serigne Ibrahima Mbacke moom maam Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasoul ak jëwrinu li nga xamante ni mooy liggéey bi jëwrinu waa dal bi tabaarakalaaw di suñu xarit di suñu soppe tabaarakalaaw di Serigne Abo Mbacke moom Serigne dam Atta Mbacke nga xamante ni ndeysaan ca mbaax ga Serigne Abo ca yiw ga waaye sëriñ abo ca mën a dalal ganam nga fa tabaarakallaahu eh, ñuy kontaan ci moom bu baax a baax ak sëriñ laat ak mboolem waa kër gi yëpp fa tabaarakallaahu kontaan nañu ci ñoom kon nag sëriñ abo moomee la ñuy dem seetaani nga xamante ni liggéey bi nga xamante ni moo ne ci kër gi liggéey bi nga xamante ni moo ne ci dal bi organisation bi lépp tabaarakallaahu eh, moom mooy jëwrin gi dañuy dem teewlu ay kàddoom moom sëriñ abo mbake Mbacke eh, macha allah mu mu daal di koy dégtal mbooleem jullit yi dëgtal ko mbooleem taalibe maam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasool gi yëpp bu ko defee ñu del si macha allah daal di koy commenté daal di wéyee li nga xamante ne mooy plateau bi kon nag régie élément bi bu noppee rek ñu seetaan ku te ñëwaat incha allah. di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu waa ITV. E sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci fekkee gi ñu ko fekkee te at yii nga xam ne nii lañ ko daan defee nii lañ ko defe woon daaw nii lañ koy defee ren di ko ñaan yàlla kon defee at yu nekk mu mu gën a demee ni ni ñu ko bëggee. di la sant ci teewaay bu baax. waaw di siyaar suñu kilifa ji toog di Seex Abdou Lahad te suñu mag bi di suñu kilifa ci ci ci bërëb bi. ok macha allah sëriñ bi loolu am na solo nuyoo bi teey na tedd na am na solo ñu nekk ci yor yoru màggal gi fii nga xamante ne mooy seen dal macha allah daaw ñëwoon nañ fi ren ñu ñëwaat liggéey bi depuis daaw ba léegi nan la demee. waaw comme ni nga ko gisee daaw gisee sa ren ji at mu nekk dañuy jéem a góorlu di def loo xam ne ni day gën a kaweel màggal gi gën koo jëmeel kanam ndax ñun amuñ lu dul sëñ Tuubaa amuñ lu dul lim ñu bàyyeel lim ñu bàyyeel nag da cee bokk ci màggal gi di ko cant sant la yàlla sant la yàlla gi nag mooy ni ñu ko fas yéene di defe di góorgóorlu ci lépp loo xam ne ni leer na lañ danañ dana dana dana amal solo màggal gi ñu jéem koo def jéem cee góorgóorlu ba yàlla dimbali ñu ñu amee ko nañ ko nañ nañ ko bëgg incha allahu rabi tey it noonu it la lay lañ fas yéene mu koy doxee waaw ba keroog ñu ñu koy tali sax mënta am waaye di di ko fas yéene saxale noonu rek ci ndigalul sëñ hmm. macha allah loolu am na solo tey eh, ñu nekk comme ñu ko waxee ci yor yoru màggal fi nga xamante ni mooy kër Serigne Ibrahima Mbacke waaye di eh, eh, di seen maam waaye seen waajur di Serigne Dame Abdourahmane Mbacke tey Serigne Dame Abdourahmane Mbacke boo ko bëggoon a xamale ak ñi ñuy seetaan xam naa xajul sax ci interview waaye d'une façon ramassée rek kan mooy Serigne Dame Abdourahmane Mbacke. waaw comme ni nga ko waxee mooy sëñ Dame Abdourahmane Mbacke ñu ngi ko tuddee sëñ Dame Abdourahmane Lo di doom ci Cheikh Ibrahima Mbacke moom sëriñ Serigne ba mu ngi toog ci euh, mi ngi wuutu baayam fi depuis 1955 am na ay rakk muy Serigne Khadim Mbacke moom Cheikh Ibrahima ak Serigne Fallou moom sëñ Ibrahima ak Serigne Mamoor moom sëñ Ibrahima waaw sëñ daam di seen mag yàlla dogal Serigne Khadim ak Serigne Mamoor ñu leen di jooy di leen ñaanal yàlla. seenu njaboot gën a kawe ci ci ci njabootuk lislaam gi waaye di ñaanal sëñ daam atta sëñ daam abdourahman mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba lim naa la liggéeyal seexul xaddim yàlla mottalil ko ko ci sago ci kàttan ci lépp loo xam ne ni day jëmale Euh, sëñ bi kanam ak waa waa kër sëñ bi kanam ak yoonu seexul xaddim bi sëñ daam daal bu ñu la ko dee wax mooy nit ku modeste ku simple ku ma ku ku maanu nag ci ci ci lu bari doo ko dégg mu wax ci lu mu warta wax doo ko dégg mu génn du dem fenn xamul ak kursam ak ak kaamilu alxuraanam bi ñun ñii waa njabootam ci la ñu yar ci lay doxe digganteem ak waa kër sëñ Touba yi ci lay doxe ci digganteem ak waa kër Seex Ibrahima mm. ñu koy ñaanal mu yàgg loolu tawee mm. mu nga ko amiin yàlla yàlla nangu ñaani yow itam Mbàkke Balaay sa ngeen yàgg fi lool te wér ñu yàgg leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag bu ñu ñëwee ba ci euh, màggal toog ak njabootu Cheikh Bamba Xaadim Rasul ku nekk ngi wax ci waaye je pense que ñoom ñoo mën a gën a mieux placé ngir wax ci historique wu màggal euh, tabaarakallah boo ñu doon wax ci maam Cheikh Amadou Bamba tuuti rek ci màggal gi euh, ci lu gàtt rek incha allah Serigne Touba Mustafa mooy ki nga xam mën naa ne yëkkatiwaat lislaam ba mu jëm ba ca kaw a kaw a kaw ba kenn sëñ tayab lislaam moom la lislaam jaraloon bàyyi njabootam bàyyi lépp loo xam ne ni bëgg-bëgg doomu aadama la ngir lislaam sëñ dal boo koy tënk mooy ki nga xam ne nii jëlee na ci lis euh, maanaam jëlee na lislaam ci ràpp ci ay jamono fii ci senegal lislaam tumuranke fi lool sëñ Touba yëkkatiwaat ko ba mu jëm ca kaw ba ca kanam loolu firnde màggal gi rek da cee doy sëkk ndax am na yoo xam ne ni boo liggéeyalu yàlla doo ko mas a fayu ku xool sëñ Tuubaa ak waa këram yi xam ne sëñ Tuubaa dafa liggéeyal yàlla liggéey boo xam ne ni yàlla gërëm na ko ngërëm loo xam ne ni dafa leer nañ boo gisee tubaa li fi dugg tey ci aw nit ak ni jamono ji naqaree ak ndox mi ni mu baree nga xam ne murid ñoo dañoo bëgg sëñ Tuubaa dañoo bëgg sëñ Tuubaa dañoo am yéenay liggéeyal sëriñ Tuubaa tamit hmm. waaw hmm. sëñ Tuubaa daal yàlla fay na ko hmm. fayati na ko jiim mbiram nag mooy mooy safaan nag mooy sono sa bopp ndax bu la bu ciy jiim nii rek amoon na ku la ëpp doole ëpp la daraja ëpp la maqaama gën laa kawe gën laa gën laa kawe ci bépp fànn jiim na ci ba sonn mënalu ko dara kon nag lii xew ci jamono ju bees gii maa ngi ñaan murit yëpp gis naa fi sax nit ñoo xam ne nii bi noon ne bi taw bi baree keroog lool am na ci ñoo xam dañ ko doon filmer daanaka di di di di kontaan ci xew naan ay màggal gi du am ak échec nangam ak i nangam sëñ Tuubaa daraam du échec yéen ñi ba ngeen fi daree ñëw ba léegi saa bu ngeen ñëwee at ma ca des da ngeen fi fekk lu ngeen fekkutoon daaw kon nag moo leen xamee ne sëñ Tuubaa loolu la rek tànki kanam la am amul tànki ginnaaw ñoo ngi leen sant leen gërëm baax a baax a baax a baax ci dis bu nebi bi jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ bi Mbacke Bala yow itam sant nañ la gërëm la yaak euh, sëñ Abdou Lahad mii nga xamante ni moo nekkee ci suñu ginnaaw wax dëgg yàlla dalal bi day am solo day baax day neex tabaarakallaahu noonu la ñu ngi fii ci Touba Mbacke kër Serigne daam Atta Mbacke moom Serigne Ibrahima Mbacke moom maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul tabaarakallaahu macha allah sëriñ Abo Mbacke tabaarakallaahu euh, bég nañu bu baax ci kàddu yi macha allah euh, teey na tedd na waaye tam wax dëgg yàlla am na solo euh, Mbacke balla Aïcha ah lii rek lañ leen di doyee kàddu soññe yi dégg nañu ko. waaye itam euh, fàttali nga ñu sa maam maam Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul waaye fàttali ko waat nga ñu itam solos màggal gi euh, fa tabarakallahu fàttali nga ñu itam nees la ñu war a màggale euh, sëriñ bi Mbacke Bala Aïcha kontaan nañu ci yow vraiment nit ku baax nga kontaan nañu ci kaddu yi waaye itam kontaan nañu ci dalal gi waaye itam ak bernde yi waaye li muy neex neex tabaarakalaaw laa laamiso bi ak eh, eh, fa tabaarakalaaw loolu ak eh, ouverture bi nga xamante ni daal am nañ ko ci yow tabaarakalaaw nga may ñu ko ci sa bopp fa tabaarakalaaw loolu bég nañ ci baax a baax yàq mbooleem njaboot gi nekkee ci kër gi loolu la macha allah kontaan nañu bu baax a baax a baax kon mu ngoog ATV la première chaîne urbaine de Mbour vraiment ñu nekk équipe boo xamante ni une équipe bu dynamique bàyyi ko ba Mbour Géej ndeysaan ñëw def ay yitte euh, vraiment euh, déployer ay moyens yoo xamante ni euh, tabaarkalla bañ duggee ci dëkk bi ba léegi yandaluñu fanaanaluñu vraiment nekk ci biir dëkk bi ah n'empêche que gis ngeen dëkk bi ni mel taw bi ak ndox mi mais terewul gars yi ñu ngi xuus ci biir ndox mi di tawte ah, tabaarkalla rien que pour indil leen ay information yu baax. rien que pour vous euh, euh, servir li ngeen xamante ni moom ngeen bëgg ndax euh, nit ki itam bu la wóoloo ba di la jox ay noppam ak ay bëtam da nga ko war a jox lu baax lu muy xool di ko jox lu baax lu muy dégg macha allah kon eh, eh, mboolem équipe bu ATV bépp kontaan nañu ci ñoom rawatina nag directeur général di Alaaji Eldo Pape Saliou macha allah buuba sama xulóowaale tabaarakalaahu Alaaji Modou Ndoom magum kër. macha allah ñëpp rek ñëpp ñëpp ñëpp kontaan nañu ci yéen fa tabarakallah ak Boubacar suñu journaliste boobu nga xamante ni tabarakallah moom itam wàccoon na sur le terrain amal ay liggéey yu am solo tabarakallah jëmale ci màggalu maam Cheikh Amadou Bamba xaadimu rasul gi euh, yaakaar naa euh, boo leen xoolee suñu ay élément amul fu ñu duggul ci dëkk bi tabarakallah euh, dem nañu fépp fépp mboolem njabootu maam Cheikh Amadou Bamba xaadimu rasul boo xamante ni rek am xam nañu ko di lanteek moom di jëflanteeg moom Euh, tabaarakallaahu dem nañu ci ñu ci ëpp waaye nag olof mooy wax ni xalangu dajul suuf fa tabaarakallaahu moo tax euh, mënuñoo dem ci ñëpp waaye ci ñu ëpp dem nañu ci ñoom seeti leen euh, ñu am ak ñoom waxtaan yu am am solo tabaarakallaahu ba tey ci doxantu bi demoon nañu seeti ki nga xamante ni mooy jàmbaari maam Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul bi nga xamante ni nee naa kenn dootu ko présenté ci mim réew ndax tagg gi mi tagg yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wa salaam ci mbindum mam Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul waye bolé ko ak yar gu mat waye bolé ko ak dal gu mat sëkk nga xamanteni dang koy xol ma sha allah dang koy sop ngir khasaayidi nga xamanteni mom la bëgg waye diko ko tagg waaye kennal gi mi kennal mam Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul bëgg ko bëgg go xamanteni yamalewuko ak dara koku nak moy Serigne Khadim Kebe fa tabarakallah demoon nañ seeti ko euh, macha allah am ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu mu wax ñu ban gis-gis la am ci màggal gi ak nan la dundee màggal gi waaye itam moom sëñ Xaadim Kebe euh, àdduna jëmale ci décision bi nga xamante ni euh, sunu mbokki Baay Faal yi ñu ngi ñu ngi koy amal ci dëkk bi liggéey bi nga xamante ni suñu mbokki Baay Faal yi ñu ngi koy amal waaye muy ndigal loo xamante ni ñu ngi ko jëlee ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké mu daal di koy rafetlu tabaarakallaahu eh, wax ci xalaatam kon nag Serigne Khadim Kebe moom itam bu élément bi yembe ñu dem seeti ko fa tabaarakallaahu régie eh, bu élément bi yembe ñu dem seeti ko te ñëw incha allah eh, daal di dalal nag suñu mbokki gambien yi nga xamante ni fa ñu ngi jógee ko ba Gambi ñëw ci màggalu maam Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul gi suñu mbokki gambien yi bu bi yembee rek ñoom itam ñu daal di leen di dalal fa tabaarakallaahu ñu wax seen xalaat ci màggal gi waaye itam euh, ñu am ak ñoom waxtaan bu yaato yaatu jëme ci jëme ci yoon bi nga xamante ni jóge nañ ko ba gàm fii ba gàm bi ñëw màggal si waaye itam fa tabaarakallaahu euh, nan lañ gisee màggalu maam Cheikh Amadou Bamba xaadima rasul gi régi bu élément bi yem ñu dem te ñëw incha allah. màggal gi de xanaa sant yàlla rek nañ ko dundee dundin wi tamit mooy ndigal li nu am rek ci sëñ Tuubaa Cheikh Amadou Bamba xaadima rasul nim ko santaane rek ñu defale ko noonu noonu rek lañ ko dundee mooy ma weeru tere ba léegi ñi ngi jàng alxuraan di ko jàngulu mboole ci xasaa itam yu tedd yi ak benn ñett yooyu rek mooy màggal gi alxuraan xasaayit ak berndeel jaami yàlla yi nga xam ne ay ganam lañu ñu teew ci dëkkam bu tedd bi yooyu yëpp nag def nañ ci suñ kam kàttan ndax màggal gi wax naa ko ba tàyyi mbàq bu tooy la te su demee su demee ren déwén rek lay dellusi waaye nag noonu daal li ko dundee mooy jëfe ndigalu sëñ Tuubaa ci ñu ñëw sant la ko boromam ndax liggéey bu réy bi mu am digganteem ak boromam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu daal dundi ni mooy ni ko sëñ bi diglee rek mm. jéem na suñ këm kàttan pour defe ko noonu ah. yëg-yëg bi tamit mooy sant yàlla mooy li Baye Fall daa wax lii du neen yàlla la boo tàbbee ci dëkk bi tey di nga xam ne àdduna yëpp teew nañ fi du ma ne Sénégal du ma ne Afrique du ma ne Europe waaye àdduna bi yëpp fenn fi ci ne nit jóge na fi ñëw màggal bisub Seex Ahmadu Bamba bi mm. noonu lañ ko defee tam ci monde bi yëpp mm. tey boo demee amerique ñoo ngi koy màggal boo demee Europe ñoo ngi koy màggal soo demee Asie ñoo ngi koy màggal boo demee Màkkatal mu karam sax tey ñoo ngi koy màggal kon nag bis a ngi boo xam ne bis bu rëy la bis bu tedd la ndamul Sénégal la ndamul Afrique la ndamul àdduna bi yëpp la kon nag ñu ngi ci ñaan daal mooy yàlla bu muy suñ mujj màggal ni ko sëñ tubaab bëggee ci ku ko màggale noonu mm. yàlla nañu am màggal googu ci barki borom Touba te yàlla def jàmm ci réew mi mm-hmm. sotti xéewal mm-hmm. yéen itam sa borom barkeel seenub liggéey bu baax a baax ñu ngi nuyu àddina bi yëpp mm-hmm. di ndokkeel ñëpp ndax tey du bisu murid yi rek tey boo xoolee li li fi nekk ci ay tijaan wala xaadir wala laayeen mm. tey murid di ëpp ñu leen kon àdduna bi yëpp teew lañu mm-hmm. am na ñoo xam ne sax ay catholique lañu te tey teew nañ ngir seen digg ak borom Tuubaa mm-hmm. kon nag yëg-yëg boobu daal yëg na tey mm-hmm. ñu ngi def ak jaamu yàlla gu rëy yëg-yëg boobu nañu am yëg yàlla yëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëg jaamu yàlla goo xam ne rafet nañ jot ci ne yàlla nangu na ko ndax ndox mi ni mu wasaaroo rek ngay xam ne tey alxuraan jënu xëyee ak lu baax li ñu xëy ak nag yi ñu fi daaneel ak gëléem yi faw yàlla wane ne lii nangu na ko mm-hmm. moo waral kon ndoxum xéewal la mm-hmm. ndoxum tawfeex la yàlla nañ ko muur loo macha mm-hmm. allah euh, loolu am na solo sëriñ bi euh, tabaarakallaahu euh, macha allah ci la ñuy ñëw sax tabaarkalla gis nañ ni màggalu ren gi gis nañ ni beneen facette la am beneen xar kanam ndax gis nañ ni sëriñ bi joxe na ndigal ci Baay Faal yi ngir ci ñiy màggali am beneen comportement loolu nan nga ko gisee. waaw xam nga dëkk bi moom hmm. amul gis hmm. Hmm. màggal gi tamit sëriñ bi moo ko digle wax nañ ko defee nii gis-gis amul ci dëkk bi li fi am rek mooy li sëñ bu digle rek ñun ñëpp ñu war ci te sëñ Muntaxa da ko yeesal waaye sëñ Tuubaa li mu bëggoon ci dëkk bi yëpp bind na ko tënk ko ci genn xasida gu ñuy wax Matlabul Fawzayni loolee la sëñ Muntaxa ñëw rek di ko appliqué waaye moom moo ne wàccalu daban maskana taxalimi Hmm. wa mawdi'al hmm. fikrati hmm. wat tafahum dëkk bi dëkkub daara la dëkkub jàng la dëkkub lislaam la wax na fi tamit wacalu wal tusbitan fihi jamaatun tuqim as-salawaatil xamsi daa bani akim dëkk bi daal lu la waaye mën a wax dëkkub jaamu yàlla rekk la noonu la ko borom sànce woon moo waral nag nit ñi nag fu ñu dëkk bu yàggee Eh, dinañu ak ak matériel doomu aadama dina leen dab hmm. waaye nag loolu yàlla moo binde noonu àddina moo wax wa sakkir fay na sikkiraatan foxal moominin mooy fàttali nit ñi rek te fàttali yàlla moo nu ko digal fàttali nit ñi nu ñu war a comporté ci dëkk bi ak nu ñu war a comporté ci sëñ Tuubaa loolu mooy lii Baay Faal yi def rek hmm. te ci ndigalu sëñ Tuubaa li jóge macha allah muy kàddu yi Serigne Khadim Kebe wax naa leen kenn dootu ko présenté ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp macha allah loolu yàlla na yàgg te yokk ci barke yonent bi ci barke maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul xam naa duñ ko téye lu yàgg dañ koy jox rek euh, mu daal di tàggatoo joxe kàddoom gu mujj ci interview bi nga xamante ne moom la ñuy def. waaw di sant rek ndax a yi di yéen itam di leen sant ndax bàyyi ngeen seen i yëpp ñëw ñu taxaw ci màggal gi mm-hmm. te dara taxul ngeen di taataan yi lu dul rek. Mm-hmm. bëgg rek nit ñu xam ne màggal gi xéewal la toofeex la ndax seen télé bi ñu bari ñu koy seetaan kon nag bu ngeen ñëwee taataan loo xam ne fii ngeen ko taataane ci dëkk bi loolu njëriñu la jullit yi rekk la kon yàlla yàlla yokk leen yàlla sàmm leen yàlla bu muy suñ mujj màggal yàlla ñu màggal at yu bëree bëri te yàlla nangu lu màggal gi te xéewal gi yëpp yàlla wisaare ko ci àdduna bi yëpp ci barki sëñ Tuubaa ñërë jëfate jërëjëf yow itam cant ak ngërëm ñeel na la waaye di nuyu bu baax euh, sama xarit Serigne euh, Khadim Silla ndeysaan moom ku baax la mais xam naa nag euh, Serigne bi bu santoon Samb bu doon sëñ Khadim Samb ci lay dàqee ñu ngi koy nuyu di ko ziar muy suñu xarit di kóllëre gu yàgg goo xamante ne suñu mag suñu kilifa alaaji saat bu moo jàppoon loxoom jàpp sama loxo seexa la ñu boole ñu waaye ma lay waatal ni moom mu ngi koy dox waaye man maa xaw a nu mu tuddati noonu lay nuyoo tamit man xuma maa ko wax maa ngi koy tooñ léegi ni ko tey nag looy wax xuma mu ni ma eh, sopp na bi tabaarak tabaarakallaa yéen a ngi ko dégg noonu muy àddu ci suuf eh, noonu la wax nañ leen ATV dina leen eh, ñëwal ci dëkk bi tedd bi fexe ba ngeen dund màggal gi fa ngeen nekk te mënoo leen a ñëw Touba mu ngi noonu ki doon àddu ngeen di teewlu mooy Pape Samb bu Seydouna Mohamed ñu dem feneen ci leneen incha allah. ngi ak Serigne Khadim Kebe fa tabarakallahu macha allah kàddu yi comme ni koy faral di waxee tey na tedd na waaye itam allah am solo Serigne Khadim Kebe ndeysaan moom nag mu nga kontaan nañ ci moom ndax suñu kilifa la ndax mook suñu kilifa suñu mag suñu xarit alaaji Saat bu Samb samedi ak dimanche lañu bés doxul seen diggante ndeysaan wax ma wax bu neex wax bu am solo Eh, nee na ma yow sunu njaboot nga ndax njabootu Sadibou Samb moom sama njaboot la eh, sama njaboot njabootu Sadibou Samb la macha allah ñu kontaan ci bu baax a baax ci disponi disponibilité bi nga xamante ni am na ko ci eh, suñu diggante ak moom yombal gum ñu yombalal li nga xamante ni mooy interview bi yàlla na yàlla fay ko yiw ci barke turandoo maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul yàlla na yàlla fay ko yiw ci barke Seyyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi muy tàgg ñu xam ne nag eh, tabaarakallaahu bëgg na ko lool am ci moom cofeel fa tabaarakallaahu mu ngoog eh, dañuy eh, continuer li nga xamante ni mooy spécial plateau màggalu Touba gis ngeen li leen fi woon ci ay éléments li fi ne ci sax ay éléments vraiment ëpp na loolu waaye lenn rek lu ñu jukki ngir tabaarakallaahu ngeen dund màggal gi ca fa ngeen ne comme niñ leen ko annoncé woon léegi bokk na ci suñu invité Euh, suñu mbokku gambien yi nga xamante ni fa tabaarkalaaw dañoo jóge réew ak réew ngir ñëw wuy si woote maam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul tabaarkalaaw ñu toog ci nag ak euh, kenn ku ñuy wax Chérif ñu toog ci ak nga xamante ni mooy Chérif euh, Sané comme ni ñu leen ko waxee jógee ko ba Gàmbi macha allah ngir ñëw bokk ak ñun li nga xamante ne mooy jotaay bi dañ koy bàyyi mu nuyoo ak mbokki internet yi. nuyu ak mbokki téléspectateurs yu ATV la première chaîne urbaine de sen seen Chérif nuyu nañ la. micro bi. waaw fay naa leen. Hmm. man tamit di la salaamaaleykum. Hmm. mbokk yi. Hmm. waaw maa ngi leen nuyu. waaw télé bi maa ngi nuyu maa ngi naa nuyu bu baax. di leen sant di leen yi ah. waaw. am lii am na solo lool. wallaay waaw am na solo lool. Mm-hmm. ñun seen mbokki Gambien lañ mun naa wax ne. ñu ngi mm-hmm. leen di wax Gambie ak Sénégal yëpp benn lañ. dëgg la de waaw ñun tamit Gambien lañ Gambie lañ jógee. Mm-hmm. te dañ ñëw pour sëñ bi. ñëw màggal si. màggal yoon bi yoon bi nan la demee woon. waaw jógee Gambie ak Sénégal xaw na nu soree mais ngeen jóge Gambie ñëw Sénégal yoon bi nan la nan la nan kii metti na walla waaw yoon bi Gambie ak Sénégal macha allah yoon bi métti na métti wut. Hmm. waaw waaye soo seetee yoon bi tamit sori na lool sori na torop. Hmm. waaw waaye yoon bi abba am na ay jafe-jafe yu ndaw. Hmm. waaw yéenay boo moo nekk comme ma wax mooy. yoon bi si yoon bi li ni check point bari nañ torop. Ah. waaye check point yi tamit soo gisee ñu bari torop tamit. loolu pour aar nit ñun la hmm. waa ñun ñuy ñëw si yoon bi hmm. because driver yi dañ dee daw trop ñeene yi hmm. gis ne ke checkpoint yi suñ amut loolu jafe-jafe comme accident yi dañ dee bëri waa loolu moo tey tax checkpoint yi bëri waa waaye ba tey suñ driver yi ñu bëri dañ dee complain ne comme jafe-jafe si yoon bi moo nekk ne comme léegoo léeg si checkpoint yi suñ ñëwee ba taxaw si checkpoint yi nii waaw suñ demee driver suñ demee gisee ak gars yi. Hmm. léegoo léeg dafa am luñ dee nangu si gars yi. Hmm. waaw loolu moo nekk jafe-jafe yu ndaw because driver yi comme dañ dee wax dañ dee wax wax loolu daal. Hmm. waaw man si suma boppam ma doon ñëw nii suma ñëw bi waaw gis naa lu ndaw si loolu. waaw. mu ngi noonu ngeen jógee Gàmbi tabaarakallaahu comme ni nga ko waxee yoon bi tabaarakallaahu xawoon na met tuuti waaye Serigne Touba jar na ko. jar na ko. jar na ëpp na ko sax. opanako masala wa opanako mm. wa jaral jaral nañu hmm. ko ko su nekkee Gambia ñun sun ñew bi ñun yàggu ñoo ñëw fii wa comme bala ñoy ñew fi sun harit yaa ngee ñëw fii hmm. wa bi moy sa premier màggal bi mooy suma hmm. wa way man dafa am kuma ñuma andal ma ñun sun mag bi ku ñu indi fi indi fii mo tuda seni sane seni sane wa seni sane mom magal maaga moom nekkut fii sax. Mhm. nekkut ne Gambie la dëkka. Ah. mu ngi dëkka ba Europe. Ah. waaye maagal bu nekk. fan la nekk Europe. Europe la nekk. Mhm. waaye maagal bu nekk dafay bàyyi soxlaam yi. Mhm. ñëw Gambie. mu ah. jël ñu foofu. ñun ñu ñëw ànd si ñëw fii dem nañ ñun suñ moto bi rek. dem na àppi ñaar fukki nit. oo lu ko ëppa waaw te pick-up la waaw waaye daf dee feesal tepp mu indi ñu duñ laajte kenn dara daf ñoo indi ba fii waaw mm. nu mu bugg a nu mu defaral ñu ko mm. waaw moom tamit nuyu nañ ko mm. santa nañ ko gërëm nañ ko waaw bu baax lan moo waral seen teewaay fii fii seen kër sëriñ la wala waaw comme nu ma la ko waxee man bii moo nekk suma premier yoon bi fii waaye comme gars yi dañ ma wan ne waaw seeni moom kum àndal nii mm-hmm. foofu fii moo nekk kiri sëriñam mm-hmm. te ñun tamit moom fu nekk kiri sëriñam ñun tamit foofu moo nekk suñ kiri sëriñ mm-hmm. waaw na nga gisee màggal gi en général. màggal bi macha allah neex na trop. Hmm. te yëpp demee na noonu. nu mu war a demee noonu la demee. Hmm. te gars yi suñu ñu fi daan ñëw. Hmm. gars yi suñu ñëwee kër ba ñibb si Gàmbi ñun ñu de ñun ko dee waxee. dañu comment waaw noonu lañ ko gisee tamit. waa macha allah neex na trop te si soobee yàlla comme at bu nekk ñu dee jógee Gambie daf dee yokk rek. waaw te si soobee yàlla incha allah. su ñoo ñëwaat fii màggal buy ñëwaat. xam naa ñuy ñëw moo ëpp ñu ñu hmm. ñëw ñu ñëw si màggal bi hmm. si buñ nekk nii ndeysaan waaw léegi lan nga nan eh, dem nga ziar waa dem naa ziar kan nga ziar ziar naa si Cheikh Ibra Fall hmm. naa ah, Sëñ Touba waaw ziar naa yeneen sëriñ yi ñu fi nekk waaw ziar naa sëriñ yu bëri daal yow ñooñ nga ziar ñëpp kan moo ci sa sëriñ man ñu ma ziar si ñëpp. Ah. waaw sëñ Touba mooy suma sëriñ. sëñ Touba waaw sëñ Touba. lan moo la gën a yéem ci sëriñ Touba. sëñ Touba daal lu ma fa gana a yéem lu bëri sax. lan lu bëri mënuma expliqué eh, yëpp sax. Hmm. waaw sëñ Touba comme lu def ñun luñ dégga ci luñ dégga. Hmm. waa bari na torop. Hmm. bon sëñ Touba benn comme benn dinaa joxe benn sample. sample bi mooy soo gisee nit koo xam ne mu laa mu mu jël der hmm. lal ko si géej bi hmm. mu julli si kaw géej bi hmm. mu pare mu faxas euh, der bi pandax mu naaw sëñ Tuuba laa ko déggee ndeysaan waaw la ndeysaan rek dara eh. léegi lan ngay ñaanal euh, Sénégal ñaanal ko Gambie nga xam ne fa nga jóge waaw maa ngi euh, comme ni ma la ko njëkkaa sun gars yi dañ ah, sun gars dañ dee wax ne senegal ak Gambie yëpp benn la. Mhm. waaw lu maa ñaanal Gambie. Mhm. loolu laa ñaanal Sénégal. Mhm. waaw maa ngi leen a ñaanal ah, réew mi dem si kanam. waaw ñaanal naa leen lu bari loo xam ne daal lu rafet la si suma xol bi. ñaanal naa ko Sénégal. loo xam ne eenee naa ko Gambie. eenee naa ko Sénégal. waaw. Adama Barrow seen président doo ko nuyu. waaw waaw waaw waaw nuyu naa suñ président bi Adama Barrow nuyu naa ko. waaw maa ngi ñaanal ah, gudda fan. Mhm. waaw maa ngi ko ñaanal loolu. Mhm. ndeysaan loolu am na solo mu doon Chérif euh, Sané euh, di suñu mbokk Gambien jóge ba Gambie ñëw ngir euh, màggal gi tabaarakallaahu kontaan nañ ci ci moom tabaarakallaahu waaye doo toog ba jóg nag te doo wax ak Gambien yi. Eh, like Wow. Uh-huh. Wow. Okay. Uh-huh. Then I will say I will say thanks to every Gambians uh-huh. whoever came here, mm. and then to the uh, and then to Senegal mm. to this Tuba Magal mm. is a very important thing. Hmm. You know I heard about I have been heard about it since I was too young, mm. and and I come. I, this is my first experience mm. to come here, hmm. and the way they normally explain it to me, that's the hmm. way I see it, hmm. and I like it so much, you know. And it is very interesting. There are so many interesting things over here, and there are so many things over here. Yeah, I cannot explain all, but what I'm what I'm gonna say is is very in, interesting and it's very important you know mm. yeah to experience things like this events like this you know mm. yeah this is my first time to come to this magal tuba this is your and first this is my first time your yeah, first time yeah to, uh, yeah to attend it ah, it's my okay. first time to attend this magal tuba mm. and it's very important it's very interesting and i like it so much hmm. and my wish is every gamo magal i will be here in about tuba yeah, mm. about Saint Tuba. Mm. Yeah, because I heard about so many things about Saint Tuba, mm. and when I came here, I have seen so many different things. Hmm. Yeah. ok merci kon euh, kontaan nañu bu baax a baax ci yow macha allah ci teewaay bi xam naa dañ lay daal di rek. nga daal dem ci euh, yeneen yitte yi euh, macha ñi kontaan ci yow bu baax a baax a baax mu doonoon Cherif Sané. tabaarakallaahu euh, xam naa mën ngaa kii rek boo kiiwee mën a jaar nii rek yóbbaale micro ci gars yi. macha allah bu ko defee ñu daal di euh, continuer li nga xamante ni. mooy euh, euh, plateau spécial Magal Touba. di la wax ni kontaan nañ ci kontaan nañ ci yow kontaan naa si yéen trop bu baax baax kontaan naa si télé bi. Mm-hmm. télé bi télé bi waaw ATV maa ngi leen ñaanal. Mm-hmm. maa ngi leen a ñaanal bu baax. Mm-hmm. mbooloom loo xam ne lu rafet la. lu baax la maa ngi leen ko ñaanal maa ngi leen ko eenee. waaw yal na télé bi dem kanam rek. amiin waaw incha allah incha allah léegi da ngay yóbbaale micro bi fee ci yi da ngay jaar nii rek. tabaarakallaahu yóbbaale <laughs> micro bi. mu doonoon suñu mbokku gambien bi fa tabaarakallaahu euh, macha allah euh, comme ni nga ko waxee wax na yëg-yëgam ci li nga xamante ni mooy yoon bi euh, fa tabaarakallaahu nga xamante ni ñu jóge ko ba Gàmbi ñëw ngir wuy si woote maam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul bi Chérif Sané kontaan nañ ci moom bu baax a baax di ko bégee moom ak suñu mbokku gambien yi ñoom dañoo baax gambien yi ñoom ndeysaan dañoo baax tabaaraka man comme ni ñu wax rek man Gambian people dama leen bugga <laughs> ah, ah, ah, alaaji Pape Saliou ma ne ko Gambian people moom man dama leen bugga macha allah eh, ñoom eh, dañu baax fa tabaarakalaaw eh, mu goog wax na jafe-jafe yi nga xamante ni dontale bëriwul waaye ja jànkonte nañ ko ci yoon bi waaye nee na lépp rek Serigne Touba jaral na leen ko macha allah ñëw nañu ci jàmm def seen ziar waaye itam nata naka la ñu dundee màggal gi dikk na ci ci ak ñun. waaye nan la gisee màggalu maam Cheikh Amadou Bamba xaadimu rasul euh, mel na ni nag euh, fa tabaarakallaahu euh, li ñu cëral ci waxtu nag mu ngi xëccu jëm ci jeex mu doon fii ci Touba Mbacké la ville sainte macha allah équipe bu ATV ñëw ñetti fan boobaak léegi ngir dégtal leen lépp lu jëm ci màggalu Touba fa tabaarakallaahu waxtu ñu war a yëkkati jotaay wi nag eh, tabaarikallaaw eh, agsi nañu ci maanaam agsi nañu ci ca li di leen jaajëfal bu baax a baax a baax seen kóolute ak seen ànd ñeel seen télé eh, ATV la première chaîne urbaine de Mbour law seen kóolute ngeen am di ànd ak ñun ñun itam ñu ngi ciy kontaan ak safoo ki nga xamante ne am ngeen ko ci ATV la première chaîne urbaine de Mbour fa tabaarikallaaw di leen wax ni kontaan nañu ci yéen di ñaan yàlla mi nga xamante ni dara tewu ko moom mi nga xamante ni moo yore dogal yi ñu ngi ñaan mu dogal ci ñun ñu fekkee waat euh, màggalu déwén ci barke Seydina Mouhamed ci barke borom màggal gi maam Cheikh Ahmadou Bamba euh, Xaadimu Rasul jaajëfal bu baax a baax fi nga xamante ne mooy fi la ñu daloon muy Serigne kër Serigne Moustapha euh, Mbacke moom Serigne Dame Atta Mbacke macha allah waaye itam kontaan ci rakam yi Serigne Xaadim Mbacke Serigne Abo Mbacke tabaarkalaaw ñoom lañ ci gën miin macha allah waaye jaajëfal mboolem équipe bu ATV eh, li ko dalee ci directeur eh, bi di eh, El Hadj Eldo Guèye waaye itam El Hadj Pape Saliou Faye di ñaan yàlla na ko yàlla fay sëriñ ki nga xamante ni mooy sama waale moom jarul woon sax mooy tudd turam tabaarakallahu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax waaye di jaajëfal El Hadj Modou Ndom magum kër. moom itam moo nekk ci li nga xamante ne mooy wàllu production wàllu réalisation lépp loo xamante ne mooy émission yi eh, tabaarakalaaw Serigne Jili Ngaabu moom itam nuyu nañ ko ziar ko bégg ko demoon nañ seeti ko fa tabaarakalaaw eh, fii nga xamante ne mooy ci Touba Mbacké dëkk bu tedd bi waaye demoon nañ seeti tamit waa kër eh, demoon nañ seeti sëñ Abibu Mbacké borom xaas moom itam <laughs> fa fii nga xam ne mooy ci kër Serigne Touba fii nga xamante mooy Touba Mbacké demoon nañ kër Serigne Bassirou Mbacke Abibu moom itam seeti ko euh, euh, waa këram euh, ki nga xamante mooy Serigne Abdou Ahad Mbacke moom Serigne Bassirou Abibu mbake moom itam am ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu moom itam sant nañ ko gërëm nañ ko bu baax a baax loolu la woon ci màggalu Touba Mbacke édition deux mille vingt trois di leen jaajëfal baax a baax seen kóolute ñeel seen télé ATV la première chaîne urbaine de Mbour ki leen ki doon àdduna ngeen di teewlu. mooy Pape Samb bu Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam euh, mu di leen dig daje ba euh, déwén ak jàmm ñu fekkee ko ak jàmm kenn bañ a manqué ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci barke euh, Serigne Touba Mbacke Xaadim Rasul di delluwaat di ñaanalaat Serigne Mountakha Mbacke xalif général kullu murit mu yàgg fi lool te wér lool ak mbooleem njabootu maam Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul gi nga xamante ni ñoo ànd moom liggéey bi tabaarakallaahu di leen dig daje ba déwén ak jàmm incha allahu taala وجاءت كل بهم وسكون إلى قليل المؤمنين وسكون وجاءت كل بهم وسكون